بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار doom day ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala dëgg-dëgg cant gi tolloo ak màggaayam di ko sant moom mi nga xam ni moom moo bind te tàmbali bindam xoolut fenn doog a bind te loolee mu bindit su yàqoo ba maxañoo maanaam xel du xalaat ni defaraat ko dana ko tëf kooku moom mooy buur bi nga xam ni mooy defaa kon lu ko sopp moo seet ñi ko neex mu def leen ay sang ñu topp ci seen gannaaw loolee ci ay ngëneelam yu yaatu la borom boobu moom moo seet ñi ko sopp mu def leen ay al toppe loolee ci ak maandoom gu matale la wàññi amul kenn koo xam ni am xelam mën naa ñaw ba mën a dal ci kaw ay waxam wala ay jëfam ba pare dëgg di wëlbatiku féeteeg moom amul benn mbindeef boo xam ni am na sañ-sañu laaj ko ban yil la moo tax mu def li muy def kooku moom mooy ku tedd ki kooku moom mooy mayewaa kon bi moom mooy yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki dajale niir yi ci asamaan soppi ko mu nekk ab taw jaam yi daal di ciy jariñu moo wàcc ay téeréem ci ay bindeefam ngir namm ca loolee ñu daal di cay jubee ngir mën a am texe àddina ak àllaaxira borom boobu moom moo bind doomu aadama yépp ci suuf amul kenn koo xamante ni mucc na ci kooku moom mooy kenn ki nga xamante ni ku wéet la ci ngóoram amul kenn koo xamante ni moom lañ koy nuraleel wala kuñ koy dendeel moom mooy ku tedd ki nga xamante ni moo yeyoo ñu daal di koy wéetal daal di koy màggal amul lenn loo xamante ni ay xeeti manqué manqué la yu koy jege soxlawut yittiwowul soxna waxee sulaat bi ci amee doom kooku mooy ki nga xam ni amul nawle amul kenn ku nuroog moom wala ku nuru nekk moom lenn wala ku bokk ak moom daal borom boobu subhaanahu wa taala mësul di dañ di nekk koo xam ni ku xeeñ la ci ay mbiram du def mukk lu jotul te lépp lu mu def rek loolaa gën buñ ko xamee ak buñ ko réeree musul di dañ di nekk koo xam ni ku dañ ci kumpa la amut lenn loo xamante ni dana ko ump ci ay mbindeefam wala bi tey mbindeefam borom boobu subhaanahu wa taala ak xam-xamam jiitu na maam amul lépp lu am lépp lu am rek borom boobu subhaanahu wa taala xam-xamam jiitu na loolee gannaaw ba xam-xamam jiitoo loolee dogalam daal di dikk dàtt li ca la nga xamante ni moom mooy mbir moomee su ko defee loolee mën a sotti borom boobu subhaanahu wa taala bind na li mu bind ba soppi ba noppi li ca rëy ak la ca tuuti lépp lenn ci xeeti coono wala loo xamante ni moom mooy ak tayal maanaam loolee laalu ko ca moom moo bind ay mbindeefam yi ci gën a rëy ak yi ci ndaw yépp waaye ci kattanam moom yàlla subhaanahu wa taala waaye bam ca noppee mu rek li mbindeef yi ba ñépp daal di réglé wu loolee ma ngi ko defee ci coobareem subhaanahu wa taala ba mu noppee mu nopp jaam yépp te kenn mënta génn ci loteel googee loolee mi ngi ko defee ci dooleem ju bari yàlla subhaanahu wa taala borom boobu moom moo tàggat mbooleem ay mbindeefam ñoom ñëpp ñu di ko wammatul tawan wa karahan bu neexee danañ wammatu waaye bu leen naqaree tamit danañ ko wammatu borom boobu subhaanahu wa taala la nga xamante ni moom mooy géeji xam-xamam la nga xamante ni moom mooy ay mbiram maanaam lu waay mën a xalaat xalaat lu waay ñaw ñaw xel bu ca duggee di ca xalaat daf cay réer ndax yaatu gu mu yaatu ci kàddoom moom yàlla subhaanahu wa taala ci la asamaan taxawee tàllee addina bi yëpp mu wër ko te amut lu ko téye waaye ci la lalee suuf si nit ñi di ci jog mu daal di koy dëgëraleeg ak ay montagne borom boobu subhaanahu wa taala moom moo yabal la nga xamante ni moom mooy ngelaw lam ko ca soobal mu nekk ay njariñ doomu aadama yi jariñoo ko waaye la ko ca soob mu nekk ay lor doomu aadama yi daal di cay loow wala ñeneen ñu dul doomu aadama yi kooku mooy ki nga xam ni moo jël guddi gi ak bëccëg gi di ko dugalante waaye dugalante gu gaaw lay doon yughshi layla nahaar yatlubuhu xasiisa borom boobu subhaanahu wa taala mbooleem ku doon mbër mbër maanaam bis ñëw na ci bis yi xam nga ni ndekete maanaam doole ak kattan am na keneen ku ko am waaye nekkut yow ñu ngi koy sant moom yàlla subhaanahu wa taala ci li neex ci ay mbir waaye ñu ngi koy sant tamit ci safaanut lu neex ci ay mbir ñu ngi koy sant dëgg-dëgg cant moom yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni moom moo njëkk a sant boppam alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi fatiri samawati wal ard wa lahu alhamdu fi l axirati wal ula nu ngi koy sant moom yàlla subhaanahu wa taala comme aji sant yi ni ñu ko santee waaye ñuy sàkk ci moom ndimbal sàkk ndimbalu ku gëm ni amul pexe amul kattan fu mën a bàyyi koo fu dul ci yàlla subhaanahu wa taala ñu koy jéggalu suñuy bàkkaar jéggalu jaam boo xam ni yëg ni dafa def ay bàkkaar te dafa diis kan ñuy seede ni amul lenn lu ñu war a jaamu ci dëgg jaamu gi di indi njariñ ñàkk jaamu gi di indi lor lu dul yàlla subhaanahu wa taala amul kenn koo xamante ni maam ñaareel na ko ci ak nguuram wala keneen ku ci am sañ-sañ ci biir nguuram mu ngi téere ni mbir mu nekk moom borom bi subhaanahu wa taala moo ci am kattan di seede seede ku nangoo nekk jaam waaye nekk doomu jaam nekk tamit sëtëb ak sëtër ñëpp ka nga xamante ni moom mooy ab jaam te jaam yooyu yëpp ñeel yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi seede ni muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo ko yónni woon ci mi def moom la wóolu woon ci wooteem bi waaye jógewu fi lu dul matal na la nga xamante ni moom la ko yàlla subhaanahu wa taala santoon jihaat na ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala ba dee daal di koy fekk foofee ñu ngi julli ci moom di ko ñaanal mucc ak xéwal moom ak ay saxaabaam ak ay soxnaam yi nga xamante ni ñoom ñooy nday julit ñi ak mboolem koo xamante ni ñëw na ci seen gannaaw bi ihsaanin ila yawmi diin gannaaw loolu ci waxtu yu gàtt yi ñu am yéene am ko fi am nañ yéene insha allah fàttalante ci tomb boo xam ni ragal naa ni ci waxtu yii nu toll kenn ku nekk ci ñun tey maanaam loo yittewoo la waaye looy tamit soxla woo la loolee moom mooy maanaam bakkaar def bakkaar ak yan jeexintal la bakkaar di def ci kiy def bakkaar xam ngeen ni mbokk yi maanaam kii nga xamante ni moom lañ doon jéem a melal muy yàlla subhaanahu wa taala buur boo xamante ni lii moom mooy ay melokaanam liñ ci ware ci kattan ak kattanam romb na loolee mboolem luñ la ca wax rek sooba la doomu aadama mën a yem wala yuxiituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha laa sakkani kii képp ku ko tooñ da nga ko gis aajilan aw aajila moo xam dafa jege moo xam dafa sori saa soo ko tooñee soo ko jéggaluwut wala jéggalu la wallaahi da nga ko gis moo xam ci addina la moo xam ci àllaaxira la suñ dee xool tey ci jamono bii ñuy dund lu bare bare bare tey ci nit ñi dañuy faral di jàmbat maanaam di yëpp foo tollu wow ak xol te xam ngeen ni maanaam benn aayaa ngi nii boo xam ni jullit bu nekk bu gëm yàlla tey war na ci di natt boppam borom bi subhaanahu wa taala mu ni innama almuminuna alladina ida dukkiruu bi ayaati rabbihim lam yaxirruu alayha summan wa umyaana benn mu ni walladina ida dukkiruu bi ayaati rabbihim zaadathum imaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun maanaam ci gëm yàlla saa suñu ko fàttalee aaya yàlla yi subhaanahu wa taala ba ci njëkk moom mooy du féttérlu waaye du sëgg ca la nga xamante ni mooy ay moy waaye dafay deltuwaat gannaaw yettaat boppam bàyyi ay moy sax ci ay topp beneen bi borom bi subhaanahu wa taala di wax ni maanaam saa suñu leen fàttalee ay yàlla yi zaadathum imaana daf leen di dolli ngëm yàlla tey nag axe bi moom moo am muy contraire bi maanaam dafa mel ni tey kenn ku nekk ci ñun te kiy wax ak ñi muy waxal ku nekk yaa gën a xam sa bopp maanaam dafa mel ni li nga yëg mooy alquran ak lu lay fàttali yàlla dafa mel daf lay gën a soriloo yàlla loolee lan moo ko waral mooy kenn ku ci nekk yaa ngi am feebaru xol boo xamante ni la nga cay yëg mooy wàññeeku ngëm yàlla feebaru xol boo xam ni la nga cay yëg moom mooy maanaam neex bi nga xamante ni moom la cafka bu ngëm yàlla àndal yow amoo ko maanaam wow xol goo xam ne li nga ci yëg moom mooy saa sunu la fàttalee yàlla subhaanahu wa taala maam doo yëg ak soppeeku ci sa jëmm wow xol goo xam ne la nga ci yëg mooy dafa mel ni barke amatul ci say wax barke amatul ci say jëf waaye barke sax amatul ci li la yàlla di wërsëgal wow xol goo xam ne nit ki la mu ciy yëg mooy seytaane mi ngi koy foyee te xaqan seytaane mi ngi koy foyee woo wax xol goo xam ne nit ki lim ci yëg mooy addina la gën a fat ci xolam walis ka àllaaxira loolee mbokk yi lam lu jural mooy li ñuy gis tey ci société bi ñuy dund ak yeneen société yu ñu génn waaye bu nu fàtte mukk ni mooy li muy bari bari wallahi yàlla subhaanahu wa taala téléwut a jëflanteeg ay jaamam moo tax mi ngi wax ni walaw yuaxidu allahu annaasa bi dulmihim ma taraka ala dahriha min dabba su nekkoonte ni borom bi dafay toppanteeg doomu aadama yi ci li ñuy def ci bakkaar maanaam amul kenn koo xam ni borom bi dana la bàyyi ci kaw suuf ndax mboolem doomu aadama yi ay def ko ci bakkaar la waaye borom bi daf leen di néggandiku ba ab bis boo xam ni maam ñoom ñëpp danañ ko wuy si moo tax borom bi subhaanahu wa taala mu ngi wax ni wala taxsabanna allahu gaafilan amma yaamalu alzaalimuun bul njort mukk ni yàlla subhaanahu wa taala wala taxsabanna allaha gaafilan amma yaamalu alzaalimuun bul njort mukk ni yàlla maanaam dafa sàggane wala dafa yëgut wala dafa mënul dara ci li nga xamante ni moom la defkati bàkkaar yeeg tooñkat yi def mu ni déedéet innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fi tashxasu fihi al absar maanaam borom bi subhanahu wa taala mi ngi leen di xaaree ab bés bis boobee moom mooy bis penc moo tax doomu ndey kenn ci salaf muy maymun ibni haarun bi mu doon tafsir laay ji dafay wax ni gis ngeen aaya bii ab dalal xel la ci ki ñuy tooñ waaye ab tëkku la tamit ci kiy tooñ képp koo xamante ni dañ laa tooñ mu ni aaya bii borom bi subhanahu wa taala mi ngi ciy dalal sa xel waaye képp koo xam ni ab tooñkat nga mu ni na nga yëg ni borom bi mi ngi lay tëkku ci laaya joojee moo tax mbokk yi kenn ku nekk ci ñun tey su fekkee natt nga sa bopp nga xool li ngay def ci ay bakkaar te naxuloo sa bopp maanaam li ngay yëg ci wow ak xol waroo koo mën a jàmbat te it warulaa mën a jaaxal ndax maanaam al jazaa'u min jinsil amal maanaam nit ki bu ñu koy fay lu tollook la mu liggéey rek looy lañ koy fay te maanaam doomu aadama su xamee borom subhaanahu wa taala ak ni mu màggee ak ni mu teddee ak ni mu sellee ak ni mu kawee ak ni mu soree ay manqué manqué kon di nga yëg ni maanaam bakkaar comme ni ko nit ñi xàjjatle di wax bu ndaw ak bu mag maanaam bakkaar amul bu ndaw waaye bakkaar amul bu mag moo tax Bilal ibn Saadin daf doon wax ni maanaam bul xool ci tuuti waaye bakkaar bi nga def ba tax nga xeeb ko mën na laa teree jéggalu waaye da ngay xool ci ki nga tooñ ku mu doon kookee ku màgg la te laa shakka ni ku màgg lu ko jege day màgg waaye ku tedd tamit lu ko jege day tedd te borom bi subhaanahu wa taala ku màgg la ku tedd la doomu nday tey ci jamono bii ñuy dund kenn ku nekk ci ñun war na di laaj boppam fii mu nekk lan moo ko fi indi te laa shakka ne du fi des ndax am na ñu fi nekkoon te jóge nañ fi kon su ma jógee fan lay jëm ak lan laa fay fekk moo tax Ibrahim ibni Adham daf doon wax ni ñun day ak njaboot lañ goo xam ni Iblis moom moo ñu rëngoon ñun ñëpp yàqal sunu baay ba génn ñu aljana mu ni kon amul benn doomu aadama ci kaw suuf boo xam ni war ngaa mën a am daluk dund lu dul da ngaa liggéeyaat lu la delloo dëkk boobee nga xam moom mooy aljana ndax borom bi subhaanahu wa taala bi mu bindee aadama dugal ko biir aljana seytaane fekk na ko fa yàqal ko ba ñu génne ko biir aljana génne googee ñu ko génnee nag ci sababu bàkkaar la mu ni kon benn julit bu gëm yàlla waratu la mën a am dalak dund lu dul dafa liggéeyaat loo xam ne moo koy delloo ca dëkk boobee nga xam ne mooy aljana te soo xoolee tey maanaam dafa mel ni def gi nit ñiy def bàkkaar boo dee xool ci bëtëb seetlu dafay mel ni moom mooy yombalal nit ñi sax seen neexi ci dund moo tax soo dee ci masnad imam ahmad xadis bii may wax lu wér la yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi doon wax ni saa soo gisee yàlla subhanahu wa taala muy dot ci ay xéewalam ci kaw ab jaamam te mi ngi koy moy mu ni xamal ni yootaan la ko ko yàlla yootaan subhaanahu wa taala ba mu ca noppee mu jàng fa lamma nasu ma dukkiru bi fatahnaa alayhim abwaaba kulli shay loolu mi ngi suuratul an'aam borom bi subhaanahu wa taala mu ni bañ demee ba fàtte la nga xamante ni moom lañ leen santoon ñu def ba ñu demee ba fàtte la nga xamante ni moom lañ leen terewoon ngir ñu bàyyi ko borom bi mu ni fatahnaa alayhim abwaaba kulli shay ci lañ leen tàmbali di leen ubbil buntab lu ne te wallahi mbokk yi ku am ak settantal def tadabbur ci Qur'an dana xam ni buntab lu ne maanaam loolee du ngëneel ndax buntab lu ne buntab mbugal ma nga ca waaye la am solo kay mooy fatahna alayhim barakatin min as-sama loolee mbugal du ca mën a wàcc borom bi mu ni ñu wàccel leen ubbil leen bunt lu ne hatta ida farihu bima uutu maanaam borom bi di leen jay ci seen i bàkkaar ñuy jayeexu borom bi di jay nit ñi ci seen defu bàkkaar ñuy jayeexu borom bi mu ni ñuy jayeexu ba dem ba am mbégte mbégte fees seen xol ba nga xamante ni fàtte nañ yàlla nag subhaanahu wa taala mu ni axadnaahum baxta mu ni foofee lañ leen di bettee fa quta dabiru alqawmi alladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin maanaam foofee la borom bi subhanahu wa taala nar rëqii nag ndiggal tooñkat ya moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni saa soo gisee borom bi di dot ci ay xéewalam ci kaw ab jaamam te jaam bi mi ngi moy mu ni loolee bul njoort bul xalaat mukk ni ay ngëneel la waaye la nga war a xalaat mooy kii borom bi ñu ngi koy yootaan te bu ko jàppee dana métti ndax inna batsha rabbika la shadid ci biir loolu ba léegi ci masal imam ahmad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax xeet yi leen fi jiitu woon mu ni def ci am ñoo xam ne dañ doon dëkkee di mooy yàlla subhanahu wa taala mu ni su kenn ci ñoom defee bàkkaar mu ni benn waay dina ñëw tere ko benn waay dina ñëw tere ko jàjj ko xupp ko tiital ko wan ko musiba ji nekk ci def bàkkaar waaye su suba saa soo ñëwee fekk leen ñoom ñaar ñu toog mën nañoo bokk benn lekk di ko lekk wala ñu bokk benn naan di ko naan ànd ak kontaan te mbégte mel ni du ki nga toogal moom moo doon def bàkkaaru démb ko mu ni ba loola amee borom bi subhaanahu wa taala loolee ba mu ko ca soobee mu jël lenn ci seeni xoli morom fëggale ko ca xoli la ca def mu ni ba loola amee borom bi daal di rëbb ci seen làmmañ ab yonent muy daawud ak isa ibn maryam yonent mu ni dalika bi ma asaw wa kaanu yaataduun sabab bi moom mooy moy yiñ doon def ak li nga xamante ni mooy jéggi dayo yiñ doon jéggi dayo ci def ay bàkkaar yonent sallallahu alayhi wa sallam ba mu ca noppee mu ni maa ngi gën ci ki nga xam ni bakkanu muhammad mi ngi ci loxo di ngeen diglante lu baax yéen sama xeet di terente lu bon kii def bakkaar ak kii tooñ ngeen téye ci loxoom mu bàyyi bakkaar wala mu bàyyi tooñ wala su ngeen ko deful borom bi subhaanahu wa taala dana fëggale seeni xol comme na mu fëggale woon xolu ñooñee su noppee dana leen rëbb comme na mu rëbbee woon ñooñee xadis boobu mi ngi ci masnad imam ahmad te xadis la bu wér kon doomu lay loolu su ko doomu aadama xamee dana yëg ni bakkaar basan la bakkaar musiba la waaye bakkaar alkande moom moo ci lalu moo tax kenn ci salaf da doon wax wax ju am solo mu ni almaasi maridul kufr mu ni poste bi nga xamante ni ci la lettre nekk yéefar di jaar mooy mooy yàlla maanaam poste bi nga xamante ni ci la lettre bi jaar ngir nit ki di fa jaar ba mën a nekk bu yéefar mu ni ci ay mooy yàlla lay jaar waaye mu ni la nga xamante ni moom mooy poste bi nga xamante ni fa la bànneex di jaar tamit moom mooy xool comme ni nga xamante ni poste bi dee di jaar moom mooy feebar comme ni nga xamante ni maanaam musique moom mooy poste la nga xamante ni moom mooy indi ak njaalo te loolee ñu dëggu la ku ko xam-xam na ko waaye ku ko réeree moo ko réeree doomu lañ ñun ñëpp ñu bàyyi xel ni borom bi subhaanahu wa taala daf noo sant ci alquran muy def ay seetantal ci xeet yi ci jaaroo ñi ci doon def lu baax fan lañ mujj ak ñi ci doon def ay bàkkaar fan lañ mujj borom bi subhaanahu wa taala ni wax suratul ghafir afalam yasiru fi l ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladina min qablihim kaanu akthara minhum wa ashadda quwwa wa athaaran fi l ard fama agna anhum ma kaanu yaktibun borom bi subhaanahu wa taala mu ni xanaa da ngeen a doxul wër wëndeelu ci suuf si ngeen xool xool ak settantal ñi nga xamante ni ñooy xeet yi fi jiitu woon doon ci def ay bàkkaar te ëppoon leen doole fuuf ëppoon leen ay moyens ak ay matériel gënoon leen a gudd fan ñooñee borom bi subhaanahu wa taala mu ne lañ doon fàggu mosu leen a jariñ lañ leen fàggu jariñu leen maanaam ba leen alkaane dikkalee seen fàggu teef ga la may yaatu yaatu jariñu leen te sax li gën a yéeme du loolu waaye li gën a yéeme mooy ci même saar bi ci aaya boo xam ni jiitu na aaya bii may wax jiitu na ko lu xaw a bari tuuti borom bi mi ngi fay wax ni awalam yasiru fi l ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladina kaanu min qablihim kaanu hum ashadda minhum quwatan wa athaaran fi l ard fa axadahum allahu bi dunubihim wa ma kaana lahum min allahi min waaq borom bi subhaanahu wa taala mu ne xanaa du ngeen dox ci kaw suuf si ngeen def ak settantal ci jeexintalu ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon jiitu leen borom bi mu ne ñoo leen ëppoon doole fuuf waaye ñoo leen gënoon a gudd aw fan sunu borom subhaanahu wa taala mu ne bu ngeen xoolee seenu mujj fam doon mooy fa axadahumullahu bi dunubihim borom bi daf leen a alak ñoom ñëpp waaye alkane ga bi maanaam baagi ba ut sabab ya bi sababi dunubihim maanaam ci sababu def gañ doon def bàkkaar la kon moo tax borom bi subhaanahu wa taala daf leen a alak ñoom ñëpp wa ma kaana lahum min allahi min waaq kon doomu nay doomu aadama bu nekk su fekkee naxul boppam mu def ak settantal ci njàngale yi nga xamante ni moom lañ jot a jukkee ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dana yëg ni bakkaar wallahi jigul kenn bakkaar jigul sax rab yi nga xamante ni ñoom nekkuñ ñu ñu togg ay jëf abu hurayra radiyallahu anhu mu ni téeli dana dee ci biir kaafam te sabab bi mooy bakkaari doomu aadama yi ci kaw suuf Ikrima mu ni ba ci mbonaat yi dox ci kaw suuf ba ci picc yi danañu rëbb doomu aadama ngir sababu bakkaar yi nii def Mujaahid mu ni doomu aadama yi bakkaar yi nii def sabab na saa soo xamante ni nawet nanguwut maanaam rab yëpp dañuy wax ni maanaam lii ci sababu defu bakkaaru doomu aadama yi la kon nekke maanaam bakkaar jigul mbindeef buñ togg jëf jigul ki nga xamante ni togguñu ko jëf kon sàkkantuma la kuñ togg jëf doomu ndey ndax doomu aadama yi dañoo fàtte ni benn bakkaar moom moo génne woon bàyyi aadama biir aljana ak soxnaam xawwa kër googi nga xamante ni kër xéewal la doomu aadama lu mu fa bëgg daf ko fay fekk kër goo xamante ni laa yarawna fiha shamsan wala zamharira tàngoor du fa am seddaay du fa am maam climat bi moo borom bi subhaanahu wa taala moom moo ko bind mu mel noonee dëkk boobee nga xamante ni doomu aadama coono du ko fa dab lam fay gëttoo muy parfum mooy ñaq bi génnee ci moom du fa lekk lekk di ko sonal ci biiram du fa lekk di yittewoo di ko génnewaat muy dem woon ak du fa naan di ko yittewoo di génnewaat waaye foofee doo fa am lenn loo xamante ni moom mooy coono dëkk boobee la fa génne woon baay aadam ak xawwa di soxnaam ñoom ñaar nekk suñuy maam loolee moom mooy benn bàkkaar boo xamante ni defoon nañ ko su fekkee benn bàkkaar moom moo taxoon borom bi subhaanahu wa taala génne woon ko biir aljan léegi doomu aadama moom lan lay wax boppam ci bàkkaar yi nga xamante ni mi ngi koy toggoo par bis waxuma laa giir a dundam ba ko borom bi subhanahu wa taala génnee biir aljana ndax danoo fàtte ni ci sababu bàkkaar boobee ci la ko andee woon ci kër gi nga xam ni kër toskare la kër torox torox tànge la waaye kër goo xam ni kër coono la bokk na ca seen sabab bi bàkkaar ya gaaf gi nga xamante ni topp na leen ca seen bàkkaar ya mooy borom bi subhanahu wa taala dafa digaloon aadam daf ko tere woon benn garab aadama daal di fàtte lekk ca garab ga fàtte googee rogalaat doomu aadama buy dukkat ci kaw suuf tey fàttekat nga loolee bokk na ci gaaf bi nga xamante ni seen bàkkaar boobee jur na ko muy benn ñaareelu gaaf boo xamante ni seen bàkkaar boobee jur na ko moom mooy ñoom bi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala tere na leen dañoo juum ñu daal di lekk ba ñu juumee lekk moo tax doomu aadama yi nekk ci kaw suuf yëpp ay juumkat la ñuy doon ba keroog di seen kon ndeke bàkkaar doonte benn la maanaam ay gaaf yu bare bare bare dana ca lonk mbokk yi nag danoo fàtte ni benn bàkkaar moom moo taxoon borom bi subhaanahu wa taala génne woon iblis dàq ko soril ko yërmande daal di koy rëbb rëbbaa ngi goo xamante ni yërmandeem dootul tegeeti ci kawam ba kër gis pénc bokk na ca gaaf ga nga xamante ni benn bàkkaar boobu jural na ko ko moom mooy rëy te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni képp koo xam ni fépp rëy mi ngi sa xol aljana doo fa dugg kon seytaane moom aljana du ko dugg kon bokk na ca gaaf ak benn bakkaar boobee mooy jural na ko rëy rëy daal di koy jural génn ciir man yàlla ba du dugg aljana ñetteel mooy naka noo fàtte yàlla subhaanahu wa taala maanaam alagoon na waa kaw suuf yëpp ci jamono yonent yàlla nuux ba nga xamante ni ndox fees na kaw suuf si yëpp borom bi subhanahu wa taala ni suuf mboolem lu nekk ci yow ci ndox kall ko mu génn asamaan wàcceel mboolem lu nekkoon ci kaw ci saw kaw ci ndox suuf di ball asamaan di waddal ndox yi daal di daje borom bi mu ni faltaqal maa'u ala amrin qad qudir borom bi subhanahu wa taala feesal kaw suuf si yëpp ndox ba montagnes yi sax am na ci ay montagnes yoo xamante ni feeñatuñu woon ndax ndox mu bari ci kaw suuf borom bi alak ci waa kaw suuf yëpp ba mu des nuux ak ñi ko gëmoon di ab lim bu néew te borom bi dina ko nettali ci alquran loolee ci sababu bàkkaar ya nga xamante ni doon nañ ko def borom bi dina ko nettali ngir ñu mën cee di waaru. ñeenteel mooy ndax dañoo fàtte borom bi subhanahu wa taala yabaloon na fi ci kaw suuf ngelaw ci nit ñooñee nga xamante ni ñoom ñooy nit yén ci yàlla aad wala nit yi aad maanaam giir googu nga xam ñooy giir aad mokoñee ko sànni ba boo leen dee xool ka annahum ajaazu naxlin xaawiya borom bi mu ne fa hal tara lahum min baaqiya ndax gis nga kenn ku ñuy joxoñu te dañ naan la kii ca la bokkoon loolee doo ko gis loolee ci sama bakkaar yi doon def moom moo ko sama borom bi subhanahu wa taala moo ko ñu mboolem lu ñu amoon ci ay kër ak ay jur ak ay taax ak ay tabax ak ay sandarma ak ay garab borom bi dammate loolee lépp rey seen jur yi ba mu paree mu def ko ibratan lil umami ila qiyaami saa ngir mu nekk ak waaru ak tiit ak deltu gannaaw ci ñuy ñëw ci seen gannaaw ba keroog bi juróom-benneel ndax doomu aadama yi dañoo fàttalikuwut li weekoon ci seen gannaaw yit ñi ci sababu bàkkaar ci la yàlla subhanahu wa taala yabale woon yuuxu ga ci giir ak samuut nga xamante ni yàlla mi ngi yónni woon ci ñoom saalax borom bi subhanahu wa taala yabal ci ñoom ab malaaka mu yuuxu yuuxu googee bi ñu ko déggee mu xot ko te seen xol yi ñoom ñëpp ñu dee borom bi dina ko nitili ci alquran loolee ci sababu seen bàkkaar ya nga xamante ni yaa ngi ko doon def ndax doomu aadama yi dañoo déytuwul gannaaw ñu bàyyi xel ni borom bi subhanahu wa taala ba mu yebalee malaaka ci kaw suuf mu jël ab laafam mu roob ko ci suuf si tibb li nga xamante ni mooy dëkk boobee nga xamante ni ci la yonent yàlla luut dëkkoon yëkkati suuf si ak nit ñi ak seeni garab ak seeni néeg ak seeni kër ba waa asamaan di dégg li nga xamante ni mooy seen sabu ganaar yi ak seen yuuxoy xaj ya malaaka di juutal ko daal di koy dëpp li féete woon suuf féete kaw fa jaal naa aaliyaha saafilaha borom bi subhanahu wa taala mu ni bañ ca noppee ñu taw ci seen kaw ay xeer dajale ci seen kaw mbugal moo xamante ni borom bi musu koo dajale ci benn xeet ba mu dundee ak ba tey borom bi subhanahu wa taala ba mu noppee mu jël seen dëkk boobee def ko mu nekk dëkkab waaru moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da wax saxaaba yi su ngeen fa rombatee na ngeen jooy wala ngeen jooy jooy lu moom sa barab boobee nga xamante ni fa la ñooñee dëkkoon borom bi subhanahu wa taala taw ci seen kaw ay xeer yoo xamante ni ñu ngi bàyyi ko ci sawara loolee ci sama bakkaar yañ doon def la borom bi subhanahu wa taala mu ci noppee mu ni teg ci ni wa ma hiya min az-zalimina bi ba'id loolee nit ku lu sori ñi nga xamante ni ñoom ñooy tooñkat yi kon nañ deltu gannaaw bàyyi li nga xamante ni moom mooy bakkaar bi ci des mooy ndax doomu aadama yi dañoo fàttalikuwul ci seen gannaaw lu soriwut lool ni yàlla subhanahu wa taala ba mu wàccee woon ab niir ci nit yent yàlla su maam nit yent yàlla su ayib aw niir woo xamante ni niiru mbugal la maanaam niir woowee bi mu dikkee nekk lu ndëm lool ñenn ñi tax ba borom bi subhanahu wa taala di wàcc ci ñoom aw niir ak aw xiin lan lañ doon wax fa lamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu hada aaridun mumtiruna borom bi mu ni bal hiya ma staajaltum bihi riixun fiha adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa su masaana gis mu xiin yaay Aïcha dafay nettali mi dafay dugg ci néeg bee ka génn di jaabantee ka génn maam ndax tiitaange mu ni nii la ko borom bi subhaanahu wa taala defee woon nit ñi defee ne ab taw moo nar a ñëw ndeke mbugal moo doon ñëw ci aw xeet nag doomu aadama yi dañoo bàyyiwul xel ni jeexintalu ñooñee ma lim ci seeni bàkkaar jural na ay jeexintal ak ay gaab yoo xam ni maanaam tey jii gaab ga mu ngi rogalaat ba ñun mos nañ ci suñu wàll ba ci njëkk moom mooy seen dëkkuwaay yooyee borom bi moxoña na ko moxoñaatee goo xam ni kenn dootu ci dëkkati ba yowal qiyaama borom mi ngi ko suuratu nam la fa tilka masa fa tilka buyutuhum xaawiyatun bi ma talabu mu ni seen dëkkuwaay yaa ngi noonu daal di ràpp wéet ngir tooñ giñ doon def beneen saar borom bi mu ni fa tilka masaakinuhum lam tuskan min baadihim illa qalila wa kunna nahnu alwaarisin suutul qasas borom bi mu ni seen dëkkuwaay yooyu yaa ngi nii ba léegi kenn dëkkatu ca kon ci seen gaafu bàkkaar ya tax na fañ doon dëkk kenn dëkkatu ca ñaaral bi ci seen gaafi bàkkaar yi mooy yàlla mayoon na leen ci ay xeeti balluwaayu ndox moo xam teen la moo xam yum ci man ci doon loo xam ne ndox yooyu ni ko borom xam-xam yi misaale ci neexit ba jéggi na dayo waaye tey jii ñun mësuñu ca te waroon nañ caa masa moñ a mas waaye seen sabab bàkkaar tax na borom bi bool ne ko ca lam doon ma ko ni bokk na ci seen gaafi bàkkaar yi nga xam ne ñoo ngi ciy mos suñu wàll ba léegi moom mooy seen xam-xam yu xarala yooyee nga xamante ni tey kenn jëriñu ci ñun ñoom yàlla mayoon na leen ci xarala buñ mosara taxaw ñu la fii ndox foo ko gas di nga fi am ndox danañ ko xam ñaar mooy jamono jooju ay matériels yuñ mën a yettee ay xeer ak ay montagne amul woon te borom bi mayoon na leen ak xarala ba ñuy yett montagne yi di dëkk ci biir loolee lépp muy fann gi ñu tuddee fannu naxt fannu yett loolee lépp borom bi subhaanahu wa taala faagaagal na ko mu raab maanaam nekkul loo xam ne jëriñoo nañ ko ngir seen sababu bàkkaar yañ doon def ku mel ni Qaaruun bi ko borom bi subhaanahu wa taala alagee gis ngeen li mu amoon ci alal yépp ba ay caabeem ni mu baree woon ak ni mu diisee borom bi di la ko misaal ci suuratul Qasas loolee lépp fa xasafna bihi wa bi daarihi al ard borom bi daal di koy mëbëxët lépp moo kër gaag mbindaan yaag lépp loo xamante ni moom moo ko jege woon borom bi daal di koy wannaale mu duggaale ci bi li nga xamante ni moom mooy suuf si kon doomu nay borom bi subhaanahu wa taala mi ngi nuy bàyyiloo xel ci lii nga xamante ni moom mooy li xewoon ci jamono ngir doomu aadama yi ñëw ci ginnaaw man koo def ibra waaye man cee bàyyi li nga xamante ni moom mooy ak settantal doomu nay ndax danoo bàyyiwul xel ndax danoo fàttalikul ni bakkaar dafay def gaaf goo xam ni maanaam musiba yi ci nekk kenn mënu la ko wax bokk na ci biir loolee waa banu Israil bi nga xamante ni yonent yàlla Muusa bàyyi na fa Haarun ci gannaawam wala Muusa as-Samiri te histoire bi ni ko alquran di nitilee ba ñu jël la nga xamante ni mooy aw yëkk defar ko te yëkk ko ñi ngi ko defaree woon ci or di ko jaamu loolee ci sababu gaafu bàkkaar googee borom bi subhaanahu wa taala mere leen ci jëpp leen ci te la bëgg doomu aadama li nga xamante ni moom mooy or tàmbalee dugg ci xolam te du dañ di continuer ba keroog yowmal qiyaamati ndax danoo fàttee borom bi subhaanahu wa taala daf doon wàcc ay ñam ci kaw asamaan waa banu israila di ko lekk daawuñu bay daawuñu togg waaye ci seen gaaf ak seen dëgër bopp ak seen bari bakkaar tax na borom bi subhaanahu wa taala dakkal loolee digal leen ñu wàcc misra dem di bay loolee moom moo jur gaaf ak coono gi ñuy daj tey ngir mën a am lu ñu dundee te du dañ di dëkk du dakk ba keroog yowmal qiyaama ndax danoo bàyyiwul xel ni maanaam borom bi sootal dafa digaloon waa banu israil la seen lekk yi bu ñu koy denc ab diir bu yàgg suñ ko soxlawut bu ñu ko denc ngir di ko tëj ay nit di ko soxla waaye nañ ko joxe ñu dëgër bopp jël ñam ya di ko denc borom bi daal di cay dugal ay microbe borom xam-xam ñu ni ca la tàmbalee am microbe kaw suuf ba keroog yowmal qiyaama mam taarixiyan li nga xamante ni moom mooy sosut microbe ci kaw suuf mi ngi tàmbalee foofee bi leen borom bi sota digalee ñam yi bu leen koy denc ñu di ko denc seen gaaf ak bakkaar tax na su fekkoon du woon loolee kon tey frigidaire ak frigo yi ñuy denc ngir bañ lu yàq wallahi duñu ko yittewoo lu tax ndax boobee microbe bu yàq ay ñam amul woon waaye seen gaaf bakkaar tax na ay microbe rot ci kaw suuf bu ko defee du dakk ba keroog yowmal qiyaama bi ci des mooy bu ñu doon rogalaat di ñëw ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo bàyyiwul xel ni mim xañ gi nga xamante ni xañ nañ ko laylatul qadr xamuñu ko bokk na ci sababu bakkaar ak gaafu doomu aadama benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tëdd ba guddi mu gént borom bi wan ko laylatul qadr te xadis bi wax bu wér la mi ngi sahih muslim mu gént gis laylatul qadr ñu wax ko ni ko bis sàngam la mu yeewu dajale saxaaba yi bëgg leen koo wax waaye bi mu leen dajalee balaa mu leen koo wax rek fekk ñaari saxaaba ñu ngi poñeente kenn ku nekk di yëkkati ay kàddoom fekk dañ doon xuloo ñoom ñaar di jàppante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yittewoo di leen àtte dox seen diggante far ci diggante àtte googu mu daal di fàtte la nga xamante ni mooy gént gi bi mu dajalee saxaaba yi mu ni biir ci guddi borom bi subhaanahu wa taala wan na ma laylatul qadr waaye dara taxuma koo fàtte lu dul ñaar ñii nga xamante ni doxoon naa seen diggante ba fi mu ne fàtte naa la nga xamante ni moom mooy gént ga te loolu mi ngi saxi muslim ñaar bi moom mooy lii nga xamante ni mooy alxawaarij nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni gis nga bu ma leen daj bu ma dajee woon ak ñoom danaa leen rey rey bu méttee métti bokk na ci seen gaaf seen sabab maanaam musiba ji leen dal leen ko teg mooy gaaf goo xamante ni sabab la bàyyi ko ci maam ji leen jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis daf doon séddale ay mbir xadis la boo xam dafa ko tënk rek noonu abi saïd moom moo ko solo abi saïd al-xudri bi mu koy séddale yonent bi séddale ko ñeenti saxaaba benn waaye ci saxaaba yi jug mu ne ko yow yonent bi sa séddale bii wallahi maanduwoo yonent jug daal di mer ba bët yi xonq mu ne ko su fekkee man maanduwuma kan mooy maanduwte ci kaw suuf saxaaba yi daal di jug nar a dal ci kawam rey ko yonent mu ne bàyyi leen ko gis ngeen kii dina génnee ci njabootam ñoo xamante ni ñoo gën a bon ci kaw suuf dañuy rey ñi nga xam ñooy ñoñ ngëm yàlla di bàyyi ñoñ bokkaale ca la waxee woon waxam ji siiw jooju su ma leen fekkee dina leen rey rey goo xam comme ni ñu maam xatlaat loolee tamit xadis la bu wér kon doomu ndey nekk gaafu bàkkaar dafay rogalaat ba xañ barke sax nit ki li nga xamante ni mooy ay sëtam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci benn xadis boo xam ne xadisul qudsi la yàlla subhaanahu wa taala mu ni maam yéen samay jaam na ngeen ma topp maanaam bu ngeen ma toppee danaa kontaan maam te bu ma kontaanee danaa gërëm te sama ngërmande amul ab yamukaay waaye na ngeen moytu di ko def ay bàkkaar ndax su ngeen dee def ay bàkkaar danaa mer te su ma meree man yàlla danaa rëbb te sama rëbb dana rogalaat ba egg sa juróom-ñaareelu la nga xamante ni moom mooy ay sëtaat te loolee xadis la bu wér amul taarud ak aaya bi wax ni wala tadiru waziratun wizra uxra déedéet amul wuute ak bàkkaar kenn du yenn bàkkaaru moromam maanaam ñoom kay ni ñuy boolee aaya boobu ak xadis bi moom mooy maanaam ndeke defu bàkkaar gi gaa gëm jural mooy ndeke maam aw yiw day xëcc bàkkaar day aw yiw day xëcc li nga xam ne moom mooy maam barke waaye bàkkaar day xëy xëcc alkande kon nit ki su nekkee ci kaw suuf lu baax mi ngi xëccal barke njabootam dina la ñëw ci gannaawam waaye su nekkee ay bakkaar mi ngi xëccal li nga xamante ni moom muy musiba njabootam dina la ñëw ci suuf ci gannaawam kon doomu lay loolee su fekkente ni doomu aadama yi xam nañ maanaam danañ yëg ni kon ndeke def bakkaar lu rëy la waaye def bakkaar musiba la dafay alak ki nga xamante ni moom mooy doomu aadama bu ko defee ci biir loolu doomu aadama bu nekk yàlla subhaanahu wa taala daf koo sant ay sant waaye daf koo tere tamit ay tere sant yooyee bu ko sant kenn talaay nam ci taxawee noonu lay amee ngërmandel yàlla subhaanahu wa taala waaye kenn talaay nit ki nu mu sàgganee ay digle di def ay tere maam kenn talaay noonu la ñu yaakaaree la nga xamante ni muy mbugal daal di tàbbi ci kaw doomu na yi bàkkaar lii ma ci wax rek suñu ci yemoon dafay doy sëkk ngir wan lañu la maam bakkaar musiba la waaye bakkaar alkande la doomu aadama bu nekk mu yëg ni maam ñi posan di yàqee yaram noonu la bakkaar di yàqalee ko gëm yàlla te xam ngeen ni buñ nee bakkaar ki gëm yàlla lañuy wax ndax laa dan ba baadal kufr ginnaaw nekk bu yéefar waxatuñu ay waxi bakkaar kon ci gëm yàlla la ñuy waxal waaye mbokk yi bakkaar dafa am ay jeexintal yu muy def ci nit ki yow sa jëmm ci dafa may bakkaar yoo xam ni jeexintal yoo xam ni bakkaar moo ko ciy def am na ay jeexintal yoo xam ni bakkaar daf koy def ci société bi ñuy dund te laa maxaala ko dañ koy gis soo dee xool tey jeexintal yooyee maanaam ay jeexintal yoo xamante ni maam musiba ju ci gën a rëy sa morom nga ne jéem te li ëpp ci doomu aadama yi tey maanaam dikul ak settantal ca loolee waaye lu bëri ci li ñuy dund wallaahi nekkul lu dul suñu jeexintali bàkkaar moo tax benn yonent ci waa banu Israël dafa xool buxtu nasar ni mu doon def waa banu Israël di leen alak alak ju métti ba mu pare mu yëngal boppam mu ni lii nekkul lu dul sababu bàkkaar yi ñuy def li yàlla wax rek wa ma asabakum min musibatin fa mimma kasabat aydikum wa yaafu an kathir borom bi mu ni lu leen dal ci musibaat alkande rek ci sababu li ngeen faggu ci seeni loxo la ci ay bakkaare ki tooñaange te li yàlla jéggal lu bari la te lu bari ci alquran borom bi day wax wa yuhadhirkum allahu nafsa maanaam yàlla mi ngi leen di moytandikuloo boppam subhanahu wa taala doomu nay bakkaar dana def ay jeexintal yu bon ci ab société waaye loolee danañ ci tënk rek benn xadis boo xam ne mi ngi ci masnad imam ahmad te xadis la bu wér yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog ak benn bis ak saxaaba yi mu ni leen yéen saxaaba yi maa ngi leen di moytandikuloo juróomi mbir yoo xam ni yàlla bu leen yàlla dajaleeg moom ngeen fekkee ko maa ngi leen di moytandikuloo juróomi mbir yoo xam ni yàlla bu leen yàlla dajaleeg moom ngeen di ko fekkee mu ni mbonte ak ñaawteef ak tooñ ak toñar bi du fës ci aw xeet bañ di ko fësal lu dul yàlla subhaanahu wa taala dana wàcc ci seen biir ay xeeti feebar yoo xam ni la leen jiitu woon ñoom xamuñu woon feebar yooyee wallahi sadaqa rasulullah xoolal tey man sababu def ci doomu aadama yi def bakkaar ñaata ci ay xeeti feebar ñaata ci ay xeeti musiba yoo xamante ni tey doomu aadama yi ñu ngi koy jànkoonteel te wallahi du dara lu dul sababu bakkaar yi du dara lu dul sama bakkaar yi yéen mu ne mbonte du feeñ ci aw xeet bañ di ko fësal kenn dootu ko nëbbatooti lu dul yàlla subhanahu wa ta'ala dana wàcce ay feebar ak tawaay xeeti biir yu met moo xam ulcère yeeg lépp ci biir loo lim ci ay musiba yuy dal doomu aadama yi rek loolee mu ngi sababoo ci bakkaar yi te wallaahi ci bakkaar yi la sababoo ndax yéen saa sala mu ni saa su ngeen feeñalee mbonte bi maanaam yàlla dana wàcc ay xeeti feebar yoo xam ni ñu leen jiitu woon ñoom xamuñu woon feebar yooyu xoolal tey ñaata ci ay xeeti feebar yoo xamante ni mooy dal doomu aadama yoo xam ni bari ci démboo njaay la xeeti feebar yooyu xew loolee li mu lay wan mooy sababu mbonte yi ñuy fësal ak bakkaar yi nga xam ne moo wasaaroo xoolal tey foo wëlbati bu dee lu ñuy dégg la da ngay dégg mu neex la mu naqay bu dee lu ñuy xool la da ngay xool nga bëgg nga bañ su fekkee lu ñuy wax la da ngay wax su dee lu ñuy dégg da ngay dégg maanaam bakkaay dafa wasaaru ba wallahi loo yëg yëg ngëm yàlla booy génn sa buntu kër muy rab maanaam lu lu sa ngëm yàlla bari bari booy génn muy rab lu tax maanaam ngëm yàlla mënul ànd ak jonjonteeg ay bakkaar déedéet dafa biir maanaam doomu aadama place bi nga xamante ni moo gën a yell ci ngëm yàlla mooy xol te laa sakka ni bët sar dafa sar ba ci xol te day gis nopp dafa sar ba ci xol te day dégg moo leen cër boo xamante ni jumtukaay la pour mooy dafa sarba ci xol ndax bu ci metti rek xol moo koy njëkk yëpp kon loolu moo lay wan maanaam ci sababu bàkkaar yi sababu mbont yi ñuy dund limal xeetu mbont boo lim maanaam loolee moom mooy sababu bàkkaar yi nga maam musiba yi nga xamante ni moo ñuy dal ci ay xeeti feebar yi nga xamante ni borom ñu ñu koy teg nasalullah asalaama yonente sallallahu alayhi wa sallam mu ni du ñu ñàkk a matal peese maanaam aw xeet du ñu ñàkk a matal li nga xamante ni moom la ñuy peese maanaam suñuy peeseel ay nit di wàññi la nga xamante ni mooy poids bi ngir di naxe lu dul yàlla subhaanahu wa taala dafay téye ak tawam maanaam wàññi ci ñoom li nga xamante ni moom mooy seen ak dund jafeel ko jafe koo xamante ni maanaam nit dina xaw a dee ndax ab xiif wallahi mbokk yi lii ñu ngi koy dund tey jii fii la ñu nekk rek maanaam di xam li fi xew waaye am na ay xeeti barab yoo xam ni boo fa demoon maanaam ay nit ñu ngi dee na xiif léegi loolu bokk na ci sabab bi moom mooy sababu bakkaar yi nga xamante ni moom la doomu aadama yi def xoolal démb tey mbokk yi nit dund yombee woon waaye xoolal tey maanaam dafa mel ni li ngay gën di am ci alal loolu lay dund di gën di jafe dund gi dafay cher ba noppi du am njëriñ ndax boo ko lekkee mu jëral ay feebar ban aliment wax leen ma ban aliment ngeen xam bu ñuy lekk boo xamante ni mën naa may doomu aadama njariñ du ko may benn njariñ lu tax maanaam yàlla subhanahu wa ta'ala du yem jabeel dund gi waaye dafay xañ barke weccit wi ngay yore xool leen tey li ñuy am ci alal lan la jëriñ wallahi ay at yu ndaw ci ginnaaw da nga am tuuti ci xaalis mu barkeel ba nga faj ci sa soxla denc tey da ngay am ba denc ci banque te sa soxla doo ko mën a faj loolu moo lay wan ni kon barke duggatul ci xaalis ñaar bi mooy ci xeeti lekk yi lekk yi dañuy di benn lekk buy may may doomu aadama yi ngeen ci saa saa da ngay lekk ba noppi sax maanaam lekk yu juróom laay feebar ñii lépp mu nekk ci sama bàkkaar yi nga xam moom la doomu aadama yi def yonente sallallahu alayhi wa sallam mu ni yàlla du yem ci la waaye daf lim di indil maanaam dëngët ay yiis du yem ci diisal joteel dundit waaye da leen di indil dëngët ay yiis xoolal tey amul kenn koy lim kenn tàmbali ci gën a tuuti ba fa gën a mat wallahi laa wax ci gën a tuuti ba fa gën a mat tàmbali ci koñ koñaan yi ruq ruqaan yi ñu jiite koñ yi ñu jiite maire yi ñu set wallahi doo ci gis kenn ku jub néew na illa man rahima rabbuk doo ci gis maanaam lan lay wan moom muy dëggu ko waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yàlla daf leen di indil ndëngës ay njiit maanaam ñoom duñu yittewoo lu dul seen bopp maanaam ñii am di gën di am ñii ñàkk di gën di ñàkk ñii tedd di gën di tedd waaye ñii torox di gën di torox yonent mu ne lii dana bokk ci la nga xamante ni borom bi subhanahu wa ta'ala dana ko mbugalee kaw suuf su boobaa muy duñu téye la nga xamante ni mooy seen azaka bañ koo génne lu dul yàlla subhanahu wa ta'ala dana téye ak tawam xoolal bu njëkk ba doon taw di taw di taw ba doomu aadama yi maanaam seen mbay yi ñu doon mbay dafay yàqu ngir sababu taw yu bari tey ñaar mooy am taw bi dafay bari lool mu mel dafay ñëw fu ñu ko soxlaawut kon njëriñ du am ci mbay mi wala taw bi néew lool ñi doon bay jaaxle liñ doon bay yàqu ñaata ci ay jamono suy jéggalu yàlla di def ay julli baaw naan dara du ko jëriñ wallahi du jëriñ dara maanaam lu tax du jëriñ maanaam nit ki su fekkente ne dañ koo digal ab mbir dig ko ca dara laa sakka ni balaa ñu koo jox loolee dafay def lañ ko digal ba noppi walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahnaa alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard borom bi mu ne bu nit ñi dellu woon ci yàlla subhanahu wa taala tuubal ko jéggalu ko borom mu ne naa wàcce barke ci asamaan muy taw ma roof barke ci suuf gàncax di génn doomu lay yonente sallallahu alayhi wa sallam mi ngi misaal ci mujj jamono bu yonente yàlla Isa di waaj a dellu mahdi ñëw fi bokkut ak mahdi yi ñuy wax man ñu ci ay mahdi loolu dëkk mahdi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax koo kee ñëw bi te mandarga yi ko yonente bi jox bokkut ak mandarga yi ñu gis tey ñaareel mooy fii ci Afrique bii bokkut ak suñuy waat mahdi moom bu ñëwee yonente saa sallam mu ni maandu bi ak ñàkk a toon ak sax ci njub ak sax ci dëkk ak bàyyi def bakkaar dafay wasaaroo ci kaw suuf ba dinañ toog juróom ñaari at yoo xam ne doo gis ñaari nit ñuy xuloo foo gisul ñaar ñu xuloo ndax di nga gis ñaar ñu xeex déedéet yonente mu ne yàlla dafay barkeel firwi yi nekk ci kaw suuf ba benn orange buñ ko xolli woon wallahi dana toll ni baat bii nga xamante ni moom lañ yore yonente mu ne mbooloo mu rëy maanaam danañ toog jël xollitu orange teg ko ci seen kaw mu tiim leen maanaam ngir ñu mën caa cernu loolu moo lay wan ni maanaam njëriñal maanaam barke bi am ci suuf bi ci def yeneen saa salaam mu ni maanaam benn pom maanaam ak limbur bari bari ci ay nit ñoom ñëpp mën nañ cee lekk ba tuur te dafay def loolu moom mooy fataxna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard kon yeneen saa salaam mu ni maanaam lii saa su amee yàlla dafay xañ li nga xamante ni moom mooy ab tawam ba xañ ci li nga xamante ni moom mooy barke te la waxee ni su nekkul woon du bàyyi ma yi nga xamante ni nekkul ñu tooñ yàlla subhaanahu wa taala maanaam li jot am ci ndox li ñuy gis sax xot xot ci ndox yi ñëw yonente mu ñu loolee sax borom bi subhaanahu wa taala kon du ko wàcc ci kaw suuf mu ni nit ñi di ñu teg ci kóllëre di war di wut lu dul yàlla subhaanahu wa taala dana teg ci seen kaw ay noon yoo xam dañuy rëkk seen ndigg suba ak ngoon te duñ ci mën dara xoolal tey jullit ñi ndax waxuñu wax yéefar ñun ñu def jullit ñi lañu wax ndax laa dan ba ba'da al kufr xoolal tey jullit ci àddina bi maanaam lu ay am lu réer sax ñoom nga koy jiñ lu ñu fàcc nga ne ñoo ko jël maanaam lépp loo xamante ni moom mooy ay xeeti musiba ay suñ ko yëkkatee këpp ko ci seen kaw waaye bu ñu jooytu fenn ndax li ma kasabat ay diiku borom mu ne ñi ngeen fàggu ci seen i loxo ci kanam kon ñun ñoo ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ni maanaam yàlla du ci yam waaye kookee dana suqar ñi ne nekk ci seeni loxo ñu ñàkk ko ci dara te duñu am fenn fuñ ko jooytoo waaye seeni njiit seeni njiit du ñu dañ di acte woo li nga xamante ni moom mooy li yàlla subhanahu wa taala dig na ñu acte woo ci muy alquran ak sunna lu dul yàlla subhanahu wa taala dafay def seeni musiba mu nekk ci seen biir maanaam mu mel ni su doon lekkante ñuy lekkante wala ñuy rayante mbokk yi lii xadis la bu wér avec ça ay nit di bëgg a rey nit ñi maanaam si mën nañoo jaayante ay nguur yoo xamante ni moom àtte wuñ la nga xamante ni moom mooy maanaam sharia yàlla kon léegi waxu yéen sa salam ban njëriñ lay am lu yéen lu mu doon waxee doy su fekkee yéen sa salam dafa digle nañu àtte woo loolu ba dana yoon duñ dañ di ko àtte woo lu dul maanaam saa suñ dañee di ko àtte woo rek yàlla dana indi ay musiba yoo xamante ni maanaam mooy tàbbi ci suñu biir te bëkkante ci maanaam suñu biir lay doon ak yeneen ahadis yu bari yoo xam nga lay wan ni maanaam lay wane lii ci islam moom mooy koo xamante ni maanaam dafay àtte woo ci sa yaa yàlla su fekkoon du woon loolu ban njëriñ mooy am ci waxu yonent est ce que moom yonent dana wax rek maam xaba an nan suura ni mu sànneeko déedéet na ko ma yantiqu anil hawa kon lii ay jeexintal la ay gaax la ay musiba la yoo xamante ni maanaam sabab bi mooy bakkaar yi nga xamante ni moom la doomu aadama yi def doomu lay soo dee xool lii ci société bi ñuy dund amul ci benn boo xam ne kenn mën naa yëkkati loxo mu ne bii gisaguñ ko lépp gis nañ ko lépp gis nañ ko maanaam xoolal tey ñuy xeeti mbonte ci mbedd te wallahi laaj leen seen bopp ma laaj sama bopp kañ la kenn ci ñun gëj a yëg ay rangoon yu mu génne maanaam te yàlla subhanahu wa ta'ala rek sax mu génne ko lu tax bët mënul dëkkee di xool lu xaram mukk di jooyal yàlla wallahi mënul nekk mënul nekk ndax an nazaru fahmun min kihaan iblis maanaam xool lu kon fekk la ci fekk iblis te kum ko sànni dana la ko def moo tax borom xam-xam yi di wax ni saa su bët bi dëkkee di xool lu bon yàlla dafay rocce ndoxam kersa ci moom dootut mën a ti jooyal yàlla subhanahu wa taala te xool yéen safara mu ni maanaam ñaari bëti gi nii yoo xam ne yàlla mu ni rus naa leen lakk bi safara bokk na ci koo xam ne dafa wéet muy xalaat yàlla subhanahu wa taala ba tiit mu daal di jooy loolee amatul lu tax ndax saa suñu yeewoo lu bon la ñuy xool moom la ñuy gontoo moo xam ci mbedd mi la moo xam ci kër gi la moo xam ci image yi ne ci télé yi la lu mu ci mën di doon te wallahi gis nga maanaam nanu bàyyi xel ni maanaam yàlla subhanahu wa ta'ala tere tereentuwut waaye dafa tere borom bi tereentuwut dafa tere bu xësee tere lu bon maanaam xool ko ci mbedd mi xool ko ci écran bi xool ko ci image bi xool ko ci journaux bi lépp ñooy bokk yam ndax alxaraamu huwa alxaraam maadaama huwa alxaraam fii mi ngi nekk lu xaraam fu ñu la ko mën ci wanee nga daal di koy xool xamal ni mooy lu xaraam la kooku benn la ñaareel xoolal tey ñaata yoon ngay xëy di dégg ay musiba ci sa nopp ba ngoon jot lu tax nopp boobee ngay déggee ay musiba nga bëgg ciy déglu Qur'an mën a tàbbi sa dund mu jariñ la loolu fan lay jaar mënul nekk mënul nekk parce que bakkaar musiba gi ci nekk saa su duggee ci dund dana fa yàq loo xam ni loo wut wut ngëm yàlla bala nga kaa réparé waat di nga sonn saa su lu xëyee ñuy xool lu bon di dégg lu bon foo mën ci nekk ba ci sa biir kër ngay xool lu bon ngay dégg lu bon mi mi mi yow jullit bi nga xam ne gëm nga ni sax yonent saatam dafa tere maanaam musique nga bañ koy déglu ndax yonent mu ni man dafay saxal naafeq ci xol léegi xoolal yow jullit yow nga xam ne ku farlu nga sax li nga ciy dégg ku ci néew ci mënoo ci dara mbaa doo tiit mu def naafeq ci sa biir xol loolee kenn xamu ci dara wala a'uuzu billah kon maanaam loolu moo lay wan ni maanaam li ñuy dund ci ay musiba loolee ci sababu bàkkaar yi nga xamante ni moom la ñuy def la bi ci des moom mooy xoolal tey doomu aadama yi maanaam lii génn ci seen i kàddu ci ay wax yu bon même yow boo waxut di nga dégg boo waxul di nga dégg te borom bi doon wax maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid doomu nday na ñaata multi milliards ci ay nit ñooy dugg sawara te seen làmmoñ moo leen nar a duggal sawara wa hal yakubu nnaas fi nnaari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim maanaam lii lépp mu nekk loo xam ni maanaam tey bakkaar dafa yomb woyof ci doomu aadama yi comme ni yéefar mel ak bakkaar yent mu ne ni yéefar mel ak bakkaar moom mooy maanaam weñ wu sax ci la nga xam mooy kanamam daal di koy ëpp rek mu daal di jàll kon doomu na yi maanaam lii bu ñu ko xoolee ci société bii ñuy dund wallahi su dakkul kanam la jëm maanaam lii su dakkul kanam la jëm musiba joo fi dégg rek ak musiba yi nga déggut ak yi nga xam ak yi nga xamut te li ko sabab moom mooy suñuy bakkaar saa su bakkaar yi dakkut kanam la jëm saa su bakkaar yi dakkut feebar yu musiba yi kanam la jëm saa su bakkaar yi dakkut alkande yi am kanam la jëm da ngeen defe ni yàlla subhanahu wa ta'ala dana jekki-jekki def dara rek ci par hasard ma jox leen ci ay misaal maanaam daaw wala daaw jéeg wala ren sax seetante leen bu leen sori kenn ku nekk na xool ci li la gën a jege réew mi ñu nekk at mu jot benn événement am fi boo xam ni bu rëy lay doon boo xam ni bu gaaw lay doon bu jommal nit ñi doomu aadama yi njàngat ko njàngatu technique ak gën a muus ak mën a wane xam àddina pare dem waaye borom bi waxut loolu de borom bi ni awalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayni thumma laa yatuubu soo demee jeexital suurat tawba borom bi subhaanahu wa taala mu ni danañ leen wàcceel la nga xamante ni moom mooy ay musiba te fekk sabab bi maanaam ngir bëgg nit ñi deltuwaat gën a daldi tuub ngeen jàpp ni neexoon dafa jékki-jékki rek am ci par hasard nii rek borom bi subhaanahu wa taala këppoon seen bato bii nga xamante ni moom moo fi amoon maanaam ay junney junney nit daal di cay dee ngeen defee ni par hasard la wallahi du par hasard maanaam borom bi daf ñuy wan boppam ngir ñu deltu gannaaw léeg-léeg borom bi subhaanahu wa taala taal ab marché ba mu jeex takk lu ko ay amoon mu lakk bu ñu xëyee ñu jiiñ ko courant wala ñu jiiñ ko la nga xamante ni moom mooy machine bu fa doon tàkk wallahi du loolu maanaam borom bi moom mooy wane boppam wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkiruun kon doomu na yi lii mooy musiba yi ñuy dund waaye lële mooy sabab bi nga xamante ni moom moo ko fi indi soo wëlbatikoo ci jëmm ji muy kii dund ci biir société bi laa sakka ni bakkaar dafay def ay jeexintal ci moom nit ku nekk nattal sa bopp ci jeexintal yi nga xamante ni moom la bakkaar def ci nit saa soo ko gisee boobu nga tiit ci sa bopp te nga yëg ne say bakkaar bari na